comme ni leen koy toppalee lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi nañ leen ko toppal yaakaar naa ne tey dañoo dugg si bu buñ ko waxee Pikine ginnaaw raay seet si yenn ci ñoo xam te ni ay ndaanaan lañu waaye seet si kenn koo xam te ni phénomène la <laughs> naa leen bu waxee <laughs> bu waxee rek gaa yi kontaan bu waxee gaa ree muy bay laa ñu war a waxtaanee ak moom lu bare bare bare bare bay laa maa ngi lay nuyu di la siyaar waaw doom y makan maa ngi lay siyaar di la bëggee di la ñaanal jàmm di sant waa ginnaaw di sant suma xarit Cheikh Bara di sant ñoom Edmo di sant suma yaay di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm mu fekkee lépp barke alxuraanu karim parce que da ko xaar di ñaanal ñëpp di ñaanal suma rakk bi di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm parce que xale bu nekk si yoonam la maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm di ñaanal suma rakk ji ñu ko benn nekk jour gëm lu muy def ba ba tey di ko xaar yàlla na ko suñu borom sotti lépp barke suñu fàll di ñaanal ñëpp daal yàlla na yàlla def jàmm si réew mi barke bing bang si réew mi Bayla moo ko yor si réew mi. lu andi Bayla bing bang. lu ko indi parce que dama nekk si làmb booba ba tey gisuma suma bopp si laa ubbee salle musculation 2008 ba 2019 waaw. waaw salle musculation 2008 laa ko yor ba 2019 si laa ko arrêté ndax ay affaire yaa ma gën a xam ndax xam rek ku ne xam ne Sénégal moom dafa métti boo nekkee ndaw di liggéey bëgguñu jàmbaar si laa créé sumay affaire ne pourquoi pas xale yu jigéen du ma leen sàjjal parce que salle bi boo fa doon ñëw dama lay déparasité ba pare jox la si garabu saani jox la si affaire yi laal la si bing bang yi looloo indi bing bang. Mhm. ku ci ne xam ne ne fekk nañ la tribunal ci diggante Gris 2 mu doon taxaw ak benn femme boo xam te ni maam jaara la laa ma loon problème démb tribunal bi bi nga dugg ci tribunal loo fa jàng. waaw c'est la ma dugg tribunal mu doon loo xam ne mu metti ma lool nag mais tamit jëlee naa si jàngat tamit mais dama jàpp tamit jaar-jaar la dama jàpp ni tamit lu waroon am la mais femme boobu tamit tooñ nañu ba si kanamu yàlla bu dee moom ay parfum jarul ba muy jéem a colomotive sama gan dafa juum ndax fu mu toog la toog di def laay fam ne yëngal naa axlu làmb axlu làmb mënu koo yëngal de ndax kenn rek xaju si kawam barki alxuraanu karim man mu si gën a tuuti rek ma si kawam ndax dëmb woo naa waa bi su ma dëkk ñu naan ko bay dama leen woo kalaama ko ak ébiré bi. ébiré ébiré su ma waxee loolu. nekk su ma waxee loolu Eumeu Sène dina xam na ma ébiré bi. Gris Bordeaux xam na fuy ébiré bi foofu suma maam moo yor affaire bi barki alxuraan karim moo yor jalang yi foofu noonu parce que daf ñoo tooñ. da ngeen a bëgg ak jalang bi dina am problème de xam nga loolu. problème mu lan dina am problème de parce que tooñ baaxul. démb dafa maa yàkkal journée cent vingt mille démb. femme bi. barki de la ko yàqal wala femme bi non femme bi ma ko yàqal parce que def dafa def laay fam ci direct ne danaa yëngul ak lu làmb toog fu ma toog di def lu ma saf te kenn mënu si dara. la looloo ma métti man looloo ma jógloo mais man ba dem laa xaaj waat si yàlla barki sëñ Fallou man sëñ Fallou rek laa yaakaar ne billaahi maa ngi dem te Gris 2 dina ànd ak man ñëpp si barki sëriñ Fallou Mbacke moo tax après duggaatuma si biir sax damaa génn billaahi wallaahi taalaa ñoo ngi koy métti lu nag mais ñoo ngi ñaan jàmm si réew mi barke Sëñ Fall. deux ans de suuf. deux ans man ah, suuf alamaan 500 ndax vingt dëgg maa dëgg naa muy laaj 20 millions. bu bëggee 20 millions da koy liggéey. mais du nii la ko nii la ko war a mën a amee de du nii de waaw. mais Gris koo xam ne xam ne du tooñ. deux ans yooyu bu dee Gris 2 rek barki alxuraan doo ko dégg fenn parce que liggéey rek lañ ko xamee. nekk si boppam. mosoo koo dégg si détail kon ñoo ngi koy ñaanal jàmm lépp lu ñuy séntu si moom yàlla bu buñ ko gis barki Sëñ Fall. Mhm. jamono ji ni may waxee ak yow nag Pikine la ñu dugg comme li nga xam ne génn nañ ci kaaw Gris 2 génn nañ ci lépp mais pikin fan yii mu am ay problème am ay jaxasoo ci tonoor yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Pikine barki démb jël naa Njaga Diop Njaga Caam doomu Pape Diop ak ñoom presse ak yooyu mu ne ma làmb ñun Pikine ci ñun lay mujjee ñun ñooy espoiru Pikine ñoo war a defar Pikine d'accord nga ci li mu wax. waaw loolu dëgg la parce que ñoom mbër yu mag yi tey seen bopp ñoom seen intérêt personnel rek moo leen ñor. barki alxuraanu karim lijjantiwuñ benn booy man damaa dem ba man damaa dem ba man ba ma dama dugg si làmb sax rëcc lu ma duggee si làmb. ndax la parce que boobu ba tey ñu nekk si làmb nekk écrit bul faale dem naa ba rusone man écrit bul faale laa bokk. Euh, bul faale nga ne. bul faale laa ne ñëpp dem bàyyi ma fa barki alxuraanu karim. ba léegi yaa ba léegi maa ngi bul faale du Tyson moo yëkkati téléphone am ne ma kar fi si loo du dara ba tey ma parce que man maa nekk ni koo xam ne su ma xasee ba jàpp du bàyyi. xanaa nga wan ma loo xam ni yaay tax ma bàyyi équipe ma bàyyi ko mais ba tey maa ngi représenté Bou Fallé man seulement fa ne. parce que man kese parce que Tyson dafa ne. bëgg Tyson un jour parce que Tyson un jour dafa ne bay laa mën a ko naam mu ne ma du équipe la lay yóbbu de luy nekk si géew ba yow yaa koy defal sa bopp du man maa lay jàppal tànk du Valdo moo lay jàppal tànk du Gambien moo lay jàppal lii yow la kon tur bul Fallé tur la nii rek man seulement fa man kese. contact jotee bu contact jotee man mbokkum réew mi laa man aw ma sens indi di fenn su ma demee géejawaay nga ne géejawaay laa dëkk su ma demee lamsaar nga ne lamsaar laa dëkk man fu ma munti dem may bokk loolu la yàlla def bokk maa ak yenn mbër yoo xam ne dañuy mëntoon xaw ma loolu. barke alxuraan jotee. comme affilié écurie beeg wàllu. non wàllu affilié bi Tyson moo ko def loolu du Thiès loolu Tyson moo koy def. wàllu renouvelé loolu du Tyson moo koy def. loolu du dara su turu équipe bi rek. waaw ah, équipe bi kon yow dong sël yaa kese ak yàlla. barki alxuraanu karim. kon jotee mbër yi dem contact seen man man man man dew ma fenn man contact gu ma dem fenn parce que lu ne si man la dama ko mën. barki alxuraan dañoo dañ maa bëgg a suul te du barki alxuraanu karim du ma suuloo nag mu jàmbaar boo bëggee dëgg dëgg. lu ma mën la jàmbaar damaa mën a bëri de lamba waxul dëgg de boo ma weddee laajteel bekkaay. wallaay laajteel bekkaay. barki alxuraanu karim gis nga dund jamono muy def top 5 bi ñu koy wane muy def top 5 bi si ma booleeg moom. dund meen dund meen na. si lañ ma non non du bo waalo de dund 37 fu. ba muy dóor 37 di dóor bi. prise boobu ñu koy wane top 5 rek si lañ ma booleeg moom si beneen année bi ma daan ko 3 secondes Bécaye Mbaye nga toog si laa génnee man mii si laa doog a bëree sama premier combat. barki alxuraanu. ñaata combat nga am. bari naa 5 combat. ñaata victoire. 4 victoire benn défaite. Aliou moo ma daan. niil bi nag. ban niil kàllaa niil la loolu niil la kooku moo dóor ko ba mu bàyyi bëre nekk si 221 people. <laughs> da koo dóor ko ba mu bàyyi bëre. barke alxuraanu karim c'est que lu tax loolu sax alliance biram sax lu tax mu daan ma yow man ay ay guy gi bëgguma ko wax. làmb moo tëradi rek man heure yi waroon na fekk ma dépassé niveau bi. alliance guy est-ce que dama ko dóor ba mu bàyyi bëre léegi chute la yor 221 people di jël ay Mame Ndiaye Savon xam nga ni kooku bàyyi naa 221 people. people 221 bàyyi na léegi loolu la instant yi nañ ko dimbale rek ñaanal ko yàlla na ko yàlla jàppale si loolu barki alxuraanu karim non liiru sama garaan barki alxuraan ba mu bàyyi bëre billaahi wallaahi talaay non makat man la bëgg parce que maay borom meew bi non makat man lay wër warul guy gi barki alxuraanu karim man mi dóor guy gi ba mu bàyyi bëre man lay wër barki Serigne Fallou Mbacke. làmmiñam bu rëy bi de wóor na Serigne Fallou Mbacke xam nga lu ma wax ne damaa simmeeku rek mu tiit te ndar laa nekkoon de fa laa ko préparé de. defuma fa dara ndar non lekk tëdd. musculation lañ fa am. nga ñëw na Serigne Fallou ma xam ne làmb ji comme instant nii defuma dara moo ma yee sa moom guy gi ne ma gaañ du ma bëre de. ndax la bëgg maa nax ma tëdd ba guddi yeewu gént ni sër bu weex laa war a ngemboo làmb ja sa fa xam def ma si junni. waaw ma ko. barki ak la guy gi andi yëpp. barki ji sama booy dañoo ñëw ku si mel ni mbay délégué maa ngi koy nuyu au ak yaamu dakaar booy bu jël keroog raw gàddu bi. 5 millions yi booy boobu. ñoom ñoo ñëw ne ma bay laa mën a ko naam ak Alim Fall bébé soxor ñoo ñëw ne ma bay laa mais ana lu ñuy yóbbu ma ne ko lan la ñuy yóbbu dama am lu ñuy yóbbu. si lañu ñu woowee sama xarit bu ñaan ko Moussa di suma Mara ak sama benn xarit euh, Mara ñu ne ko Paya Faye maa ngi koy nuyu barki alxuraan ñoo ma jox ay sangat. billaahi wallaahi taala def ma si fukki dërëm guy gi togg añ boo gisee ma doon jooy nag ñàkk a togg añ ma am alaaji mbay am gos duraat am njoogu am mbàkke am Edmond am Cheikh Four am Zal Cheikh Baara Tidiane iPhone am ñooñu ñëpp bàyyi ñàkkuma dara mais nag combat boobu dañoo def tekk ak moom ne pot ak moom. ñoom Alaaji Mbaye waaye ma fi ab yëpp laa la wax. ne man grand combat laay wala petit combat. grand combat togguma añ. ñoom Alaaji Mbaye. añu ma Alaaji Mbaye daf maa nax. la def Alaaji Mbaye barke alxuraan karim mais xanaa moom si laa gën a jàppee parce que man topp ma ko xaalis. Alaaji lu ma ko toppee mooy dama ko bëgg te yàlla tax parce que daf ma yéene. sam passeport moo ko defar de. barke alxuraanu karim man mere nañ ma ndax passeport samay kilifa mere nañ ma ndax passeport aw ma passeport man leen daa jotoon alaaj mbay ba mu jotee moo ko defar barke alxuraanu karim mais su ma xarit la maa moom toppee moo ko ay xaalis alaaj mbay lu mu mun di def tey bu jëloon sumay million sax kontaan naa alaaj mbay yàlla def ñu bëggante mu jël nu doomam bi mama na fi xam su ma koy wax di jooy kooku la ma jël bàyyi lay ma ko barke alxuraanu karim dëgg neexul parce lu ñaan naan ànd gu yàgg dëgg la te alaaj may bi ñu àndee sax yàggul mais yàlla def mu ñëw rek bëggal ma boppam barki alxuraan kon maa ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex demul woon bësdeem di ko xappi bësdee tuyu doom yaay amal jàmm dundal wéral yow nee naa la yow réew la war a defaral vidéo di la souhaité barki alxuraan kon alaaj may yàlla na la yàlla defal jàmm lépp lu nga bëgg si àdduna yàlla ko yàlla defal ñun koy xam lu ñuy ñaan lu ñuy jooy suñu maam ju dem barki alxuraan moom la ñuy jooy nii te noppeeguñu billaahi wallaahi taalaa jàmm si alaaji mbay barke sëñ Fall. yaa ngi duggoon ci mbëru Pikine yi nga ne da da maanaam ñàkk bëggante bi seen biir. waaw yow mbëru Pikine yi li ñuy woote amul quoi parce que ñoom ñëpp a yem 6 9 quoi ñoom ñëpp a yem 6 9. kenn baaw seen bopp rek moo leen ñor. non bonuñu quoi bonuñu quoi mais seen bopp leen ñor quoi te loolu du àdduna. kan nga ci gën a xaritoo. Ama Balde. Ama ci gën a ñoom ñëpp samay xarit lañ nag mais Ama Balde laa gën a xaritoo ak ñoom. ama seen sama xarit la woon. sama alxuraanu karim xam nga lan la ma wax na ma mbër yow boo tërëngee kenn ëpp la tànk si àdduna barki alxuraanu karim ndax dañ doon ànd di sóo parce que damaa xam ni ñuy àndement yi man façon mbër bu ne ànd naa moom tubaabu joor numéro 2 dama waaw non léegi moom sama xarit parce que lu tax ko mooy combat Tyson dafa ñëw ba fi stade xool ñu ba mu nekk ko jubal si ñun ànd ak Gris Bordeaux di ànd ak di fecc ak Gris Bordeaux jour piqué ñëpp ko doon yuuxu combat Tyson ak Gris Bordeaux ba mu bi passé dafa ànd ak Gris Bordeaux dafa ñëw ba si ñun xool ñu Tyson koo xool ko Tyson lëng ma jour boobu def nii la ma def lëngu ma sengoor yëpp ndeysaan def ma nii su ma yaram daw ma jooy nga jooy barke alxuraanu karim si la bàyyi Eumeu seen ba ni may wax yow billaahi wallaahi taalaahi te Eumeu seen Eumeu Sène ba ba ma doon dugg kër Tyson damay ñëw si moom ba pare nuyu koo pare doo ko dugg kër Tyson ñoom ñaar seen problème man fekkewu ma ko kon lu ma fa lu ma lu ma fa def rek lu ma fa wax rek damaa tooñ. ama seen problème yi bari ama seen barki alxuraan ko non Tyson 2 barki alxuraan moo ne si dëgg. billaahi wallaahi tallaahi parce que nit boo leen ànd da ngeen di jëriñante. ak Jordan mais ñoom seen bopp rek a leen ñor dëggalu ma la waaye yow ñii luñ leen waxal ñoo ko def mbëri mag yi luñ leen waxaal ñoo ko def problème ak soq. waaye problème soq moom foofu ñoom ñoom la quoi parce que ba leen di bañ ñu séddoo xaas bi mënoon. samay rek ma taxaw. bàyyi xam na xanaa mooy yow yu bëri waxuñu ko. la jiñ na fi nerf fi ma nekk ndar am problème mu 6000 ak nu ma mel si dëkk bi 6000 francs war a buddi bëñ aw ma lu ma ko buddee. bàyyi si la président woo axlu lamb si la ma Gris Bordeaux wooy ma ne alhamdulilah te xam ne su ma demee foofu naa encaissé mais est ce xam nga ni man maa ngi ànd ak président te bëgguma président. président nu ñu def dafa ñaaw de barke alxuraanu karim. président barke alxuraan moo ma sokki mais nu mu def jeunesse yi moom a métti ñuy rey xale yi ñu bàyyi leen nii si zéro cinq personnes mooy moo dee ginnaaw raay booy loolu mu doon lu ma métti booy booy ku xamul xamoo dem naa ba am ñoo xam ne su ma leen nuyoo bakkan lañ may fayee. ndax pour ñoo nervi laa booy ku ne xam man ambianceur laa booy damay neexal ba mu neex man xaw ma lu ñaaw. président woowoon na ba ma wooyee dëggal ma dem naa mu dëgër sama côté. 2000 francs moo newoon suma àdduna booy xoolal ko juddu événement naar booy ba tey mënoo am jabar. booy ñuy am rek ay am ñu dul am toog nii rek di xoole boo doo jaay joxe ko dépense toog nga nekk taaw ñu yaakaar la say rakk yaakaar la defuñu dara jàng lañ gëm booy ngay daw guddi di daw bëccëg man du ma nelaw su ma àdduna une heure de temps lay nelaw man. barki alxuraanu karim une heure de temps di dund lu métti di ko gérer parce que jàmbaar laa barki alxuraanu karim alaaji may ne ma jàmbaar jugeel ndar nga fekk si ma fii ñu toog lu ñu am bokk ko. mais man bañkat laa am na yoo xam ne mënuma ko man du ma topp si ginnaaw doomu aadama booy di wax naan lii parce que ñaan dafa métti booy laaj ak a booy bu ñu la war a jox di la wiiriloo wala di naan la xaaral maa lay waat yooyu jàmbaar da ko war a bañ góor yàlla dëgg dafa war a jaayante moo tax sama saak bii du teggee ku mukk sama ginnaaw gii ku ko yenn ku ne barke alxuraante lu mu am sama yàllaa koy jox moo tax man du ma dara maa koy joxe léegi jotaat ko léegi sama yaay jox ñaari junni nii encaissé war ñaari junni nekkul ay kii ay zéro seconde la dama koy jox léegi encaissé war ko booy nañ fonkaat yaay yi ko képp koo xam ne sa yaa ngi fi yal na ko suñu borom defal jàmm ba mu fekkee sa njëriñ képp koo xam ne sa yaay new fi maa ngi lay ñaanal yal na suñu borom yërëm ko te yàlla may la xolum muñ booy yaay dafa neex jàmbaar yaay bala ngaa xam ne yaay moo neex rek barki alxuraanu karim mooy loolu man de sama yaay rek lenn rek laa ko mën a fayee takk jabar ba indi ko si biir kër gi xale yi nag bàyyi nañ bàyyi war ko waa xale yi jigéen ñi man ñu may war bëri na ndax bing bang mu ma yor ñu ne dañ maa bëgg tekki bëgguñu ma bing bang mi lañ topp nekk da topp ñu ma de bing bang mu lañ topp dama leen di jox ba seen taatu sàjj rek ñu daw bàyyi ma fi te loolu du àdduna te dama leen yéene xale yi dama leen yéene xale yi laay jox bing bang ba seen taat def vëpp dama leen yefal booy amul ku ma yefalul booy dama lay yefal ba sa taat ne bing nga daw ne ma fa bang loolu ñaaw na sëriñ Serigne Bamba Mbacke. jërëjëf Diarra jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu sëriñ fàllu sekk borom tapisserie Touba xëy nañ sama waa ji kooku nga xam ne moom man ci fan borom jees neer ya ah. nga xam ne lu mu defarul photo rek baaxut nee naa ko nag soxla naa ay photo yi koor gaa ngi ñëw sëñ Fallou sekk loolu dama la koy. wallaay tàggoo dañoo pare yow gaaw na di yow santuma gaa yi gërëmuma gaa yi santal looy tàggoo lu may tàggoo mooy am benn tiis su suñu ginnaaw raay gi si réew mi suma xarit ñoo ñaan ko Modou Gueye chaque jour du ko fàtte di ko wax yal na ko suñu borom yërëm te xaaral ko àjjana nekkoon jàmbaar nekkoon bañkat. Modou Gueye mooy chaque ajuma rek day mel ni chaque ajuma rek dama koy gis nii moom laa def estati nii. moom la ñu rey ci ajuma la ñu si ajuma jooju. te booy bi ñoo bokk julli ajuma barke alxuraanu karim seede yàlla sama kóol bee ngi sone nii maa ngi koy ñaanal yal na ko suñu borom yërëm. moo dëkk Touba moo dëkk Touba koo xam ne ndeyam dem na. baayam dem na magam dem na mu nekkoon yaakaar nekk xale boo xam ne amagul sax jabar amagul doom ñu jël ko nii si anam bu yomb déggatoo ku si wax pare nañ si moom fàtte nañ ko parce que yàkkamti nañ nga dee ñu laal la ay statut naan rëb rëb rëb xool say mandat place am ngi na le barki alxuraanu karim kooku duma toog jàpp ma te julliwuma te ñaanal ko booy boobu noonu yal na ko suñu borom yërëm te xaaral ko jana yal na yeggalee ndawam fële sa àjjana barki alxuraanu karim ak bépp mboolum jullit bu mu fekk Touba fàttewuma suma xarit ñu naan ko ay konti laa la Baye Fall bi ay konti laa la Baye Fall bi kooku fàtte Moussa Dioum Guèye Nago Papa Yadda Jules Balde Junior ñooñu du ma leen fàtte Lamine Thiaré nekkoon koo xam ne moo doon téye ci mukaayu Valdo kooku duñ ko fàtte yàqamti woon bërim mais suñu borom fekk noppi na demoon na ba tuddee cuun deux la tuddoon boppam cuun cu commandant Cuun moom la tuddi woon boppam bëgg bëre Pape Diagne di dawloo ba nu mu génnee àdduna xoolal loolu nu mu méttee promoteurs yi nañ jox gars yi ñu bëre pourtant jàmbaar yaa ngi si ginnaaw de buñ foog ñu ñu tëgg rek a ñu dàq bëre de di jël ay yenn mbëri ay ku si mel ni Siteu bu Ngor di daan naar soog a fekk ni pour moom dafa mën bëre noonu mënul bëre de. am na la Boy Diop ko mën fukki junni yoon barki Serigne Fallou Mbacke Boy Diop laa faral parce que parce que na daan bu mu daan naar sukaar dama metti naar sukaar 4 heures du matin laa ko yee ne ko jàmbar mu ne ma naam ma ne ko gaan jógal mbaa dem nga entraînement mu ne ma dem naa ba ñëw ma ne ko jàmbar mu ne ma naam ma ne ko ñëwal ma jox la si bagage yi ndax nga diis mu naa ma non baax na nii kon combat boobu dafa ma metti ba dew ma esat kala bagage yi yan bagage ngeen bëgg meew gi yéen boo leen paree dama leen jox ku nekk meew gi ndax am nga jabar am nga jabar seen jabar du mer parce que rombatoo si kër ba dëgg coowu kër kenn amatul coowu kër ndax Big Bang bi ah dara non dina dox bu soobee yàlla ak man rek même bu baaxul day. bang meew bi non boo ko booleeg meew bi yàq xale bi du noonu di bu ma dugal ndànk rek jàmbar ndànk rek. Big Bang bi da ngay roos taxal ci meew bi meew bi da ngay mucc rek toog déglu 30 minutes ngay toog déglu. barki Serigne Bamba Mbacké ngay xeex. lu la neexee non bing bi mooy koddal loola moo koy guddal réer ko da nga koy maase deux fois par jour kooku bing bang la. waaw da lay koddal dëgëral ko kooku da koy dëgëral non parce que saa ñëpp gaañu xam nga lu war a loolu ñëpp gaañu xam nga lu lu war a loolu parce que timasi bi yu affaire yi. saf safal yi dem na ba gars yi léegi mooy loolu xale yu 12 ans sax dañuy laal bing bang man dem naa ba damaa jooy. billaahi wallaahi taalaay di ñaan jàmm si réew mi di ñaan yàlla suñu borom ay bàyyil wax boobu wuy ma si lu may wax ma ne. waaw Matar Gueye de ma wooyee woo ku ma woo de man talumay ku ma woo man parce que damaa nekk si rythme damaa toll si ut dëkk boo xam ne dafa naqaree am. ah Andalaay Boury ngi fi di def ci man waaye ñooñu dañuy xaar du ma seen morom barki alxuraanu karim affaire bi link la te am naa ko jamono ji barki Serigne Fallou Mbacke. alaaji mbay nëbbu ma boppam dafa ma boore ay ñoo xam ni ay borom doole la ñu may dimbali jamono ji ma am Edmond nekk fii si cinéma Thiaroye bi boole ma ak ay linkam mam seex Cardinals am aatu ah am sama booy yi nekk fii di joob am waa fii kalandoo yi ñoom ma mafia bi. barke alxuraan ko am ñoom Cheikh boo dëggal ma la ñii aw ma seen fay marché bi booy su ma ñëwee barke alxuraanu Karim dañ may taxaw du ma laal dërëm. duñ ma laaj dara ñii barki Serigne fan fu ma leen ne leen ma ñu yóbbu ma barke alxuraan ma sekk ñoom jàmm di ñaan jàmm si réew mi barke alxuraanu karim jàmbar nee naa yàlla bu ma bëggee rek na ma bàyyi ak sama yaay parce que dama ko bëgg a fay barke alxuraanu karim Pape seen man koy nuyu parce que barke dem waaw sama yaay dafa sonn si man xam nga sama yaay baax na doy na sama yaay xam nga ma bëgg ko sama yaay alxuraanu karim ba mu méttee ñu am luñ ma fi jiim sama yaay rek a taxaw.